jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi euh, déglu euh, rajo Rewmi FM 97 point 5 ñu leen di nuyu bu baax di leen di jaajëfal yéen yi nga xamante ni yéen a ñu déglu saa su nekk mbokk yi nag tey di samdi ci weeru nag mars tey di fukki fan ak ñeent ci weeru mars. seen émission pencum euh, réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak euh, Abdou Khadre Seck aadama euh, Diallo moo nekk ci wàllu technique bi ñu koy nuyu di nuyu sunu mbokk auditeurs yi ak sunu mbokk auditrices yi mbokk yi nag tey ñu dellu am mbégte daal di seq waxtaan ak Pape Modou Guèye moom nag mooy ki nga xamante ni mooy yor kàddu wala yor lépp lu jëm ci wàllum communication. Euh, kuréel gi wala ñu ne mbootaay gi nga xamante ni mooy euh, kuréel gi ëmb euh, commerçant ak industriel yu Sénégal maanaam association des commerçant et industriels du Sénégal moom moo yor seen kàddu moom la ñu invité tey waaye nag ci seen kuréel googu am na ci yeneen i ay kuréel yoo xamante ni ñëw nañu bootu foofu rawatina ñi nga xamante ni ñoo yëngatu ci lu jëm ci mbirum mbuus. li nga xamante ni nag moom la ñu waxtaanee tey euh, dina nekk ay ponk yoo xamante ni yu fasantikoo la waaye ponk bi nga xamante ni moo si euh, njëkk rek euh, bokk na ci li nga xamante ni tey xam ngeen ne dégg ngeen ñu wax association des commerçants commerçant ku ko tudd jamono ji tey sa xel dina dem ci li nga xam ne mooy jàngoro yi coronavirus ji ndax commerçant yi ñoom tamit am nañ ci solo waaye tamit dinañu daal di waxtaanee lu jëm. ci wàllum loi bi nga xamante ni tey wote woon nañ ko fi 2016 mu jëm ci wàllum tere mbuus yi waaye gis nañ ne daal ba léegi ni daal mbuus yaa ngi jaaba jonge ministre bi nag yëkkati na ci ay kàddu nañu ci ànd moom ci biir waxtaan bi euh, maa ngi lay nuyu Pape Modou Guèye maa ngi lay maa lay fay Abdou Khadre di la siyaar bu baax di siyaar ñi nga xam ne ñoom ñooy si auditeur ak say auditrice mm-hmm. di nuyu borom kër gi Mm-hmm. véritablement di ko féliciter encore une fois ci liggéey bu rafet bi gis nañ batiment bi. Mm-hmm. Eh, gis nañ aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk. Mm-hmm. mais aussi gis nañ ñi nga xam ne moom mooy cadre de vie bi. vraiment c'est c'est c'est un travail boo xam ne lu lu jara rafetlu la. studio yi tabarkalla bâtiment bi aussi tabarkalla. ñu ngi koy gërëm bu baax moom moom li nga xam ne mooy borom kër gi président Mbagnick nekk euh, nit ku baax ku yaatu. Mm-hmm. koo xam ne vraiment li mu def ci économie Sénégal mm-hmm. ñëpp ñu ngi koy rafetlu waaye li muy def ci jeunesse bi mm-hmm. c'est très important du yàggul dara rek au niveau de King Fahd Palace amoon na loolu nga xam ne da koy faral di def y a de cela vingt ans mu di ko def Euh, muy fexe jàppale ndaw ñi nga xam ne am nañ diplôme. am nañ diplôme te war a mën a ut liggéey. am liggéey macha allah yombul ci euh, quelque koo xam ne il évolue dans le privé. quelqu'un koo xamante ni c'est un c'est un manager de de de haut niveau. macha allah donc ñu profité rek ci ci instant bi nii. remercier ko encore fois encourager ko. mais aussi wax ko ne ko la jeunesse de de de de du Sénégal. ñoo ngi ñoo ngi ci ginnaaw. macha allah. jërëjëf euh, Pape Modou Gueye euh, wax ji rafet na xam naa yow sant bi rek euh, moom ma xaw a jaaxal. moo ci xaw a jaaxal. mbaa añ nga fi ngay ñëw. xam nga lañ sant ñun moom añ bi moom moom dañ koy. teg nee añaguma añaguma Pape Modou Gueye ñu commencé waxtaan bi li nga xam ne mooy jàngoroy coronavirus ji d'abord yéen ngeen yow nga nekk ki yor kàdduk ñi nga xamante ni tey ay association des commerçants ay industriels du Sénégal mu nekk mbootaay goo xamante ni tey mbootaay gu mag la mbootaay gu am doole la. gis nañ fi ay weer ci ginnaaw ci seen grève bi ngeen fi defoon mu nekkoon loo xamante ni tey ñu bari euh, yëgoon nañ ko bi ngeen banqué seen loxo jamono ji nag dañoo toll jamono joo xamante ni àdduna bi yëpp ñoo ngi koy waxtaanee muy mbirum jàngoro jàngoroy coronavirus yéen nag ngeen di yëngatu nekk ay commerçant euh, commerçant du Sénégal ngeen am ci wàllu wu rëy yéen lan moo ci seen xalaat. waaw d'abord ñu ngi euh, mastaw ñi nga xam ne. jàngoro joojule nekk na loo xam ne métti na ci yomb. Hmm. d'abord waa Chine ñu mastawu leen waaye it ñu mastawu waa Sénégal yi parce que jàngoro ji commencé na fi dugg mastawu yit ñi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen réew yi. Hmm. fu mel ni Italie fu mel ni Espagne bëri na réew yu ñu dem fu mel ni Inde fu mel ni feneen ak feneen. Hmm. donc loolu yëpp boo ko gisee te jàngoro joojule laal benn dëkk bu bu ñu wax Chine bu am solo. ñun ñu nekk. ay industriel ak ay commerçant ci Sénégal. Mhm. te ku wax commerce Sénégal. Mhm. wax importation. te ku wax importation xam ni commerce Sénégal boo jëlee daanaka téeméer bu nekk boo jëlee juróom-ñeent fukk ya. Mhm. quatre-vingt-dix pour cent ya. loolu bari na di importation bi Chine lay jóge xam nga kon dëkk boobu boobule bu demee ba am jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ba tax usines ya taxaw ba tax ña war doon liggéey ci usines yi ñu leen bu leen génn génnati ba tax ba tax ba tax loolu. jarul sax ngay nekk économiste bu mag pour xam ni fañ nga daan jëlee bagage ya dana am jafe-jafe ci diggante boobu donc loolu moom jafe-jafe bu leer la ndaxte boo toogee ay weer amatoo bagage bagage duggatul Sandaga bagage duggatul Touba bagage duggatul Kaolack ay la yéwén boo toogee fii ak ay weer wala fii ak ay fan danañ dem sax comme bagage ñëwatul danañ dem sax ba bagage yi nga xam ne moo nekkoon ci stock yi war naa mën a wàññeeku te bu bagage yooyu nekkoon ci stock yi su wàññee lu mu indi dafay indi répercussion boo xam ne ci biir prix bi la nga daan jaayee kat bu bagage manqué peut-être mën nañoo wax jàpp ne dootoo ko mën a jaayee ti parce que bagage amatul donc ñu wax rek ni coronavirus bi moom ni ñu ko jàppee moom mooy ni ca dëgg-dëgg ni mu amee impact ci économie international bi noonu la amee impact ci économie bi nga xam ne moom mooy économie sénégalaise. Mmh. lu lu lu lu nit mën a dégg la. ndaxte bu fekkee ni usine ba parce que man Chine noonu laa koy tuddee dama koy tuddee euh, usine mondiale. fa la ñu defaree lépp daanaka. bu ñu demee ba tey bu bourse yi nekk ci àdduna bi yëpp nga dem Londres. nga dem États-Unis nga dem feneen ak feneen bourse yi nekk ci àdduna bi yëpp daanaka dafay chuter. ñu dem sax ba loolu laal li nga xam ne moom mooy njëgu pétrole bi. ainsi de suite. ba baril bi wàññeeku. ba baril bi wàññeeku. xam nga loolu dafa dafa nekk loo xamante ni tey jii nekk na feebar boo xam ne moom. man su ma doon wax ne li mu gën a contaminé sax économie bi la gën a contaminé ci àdduna bi. maanaam indirectement dañu ko dañu contaminé ñun. non l' économie l' économie est contaminée. l' économie par le coronavirus par le coronavirus. Hmm. au niveau international comme au niveau national. parce que fi may wax ak yow. maanaam ñee ñoo ngi jàmbat di faj ay nit mais ñun ñoo ngi jéem a ñun danañ am problème mu. Euh, lekk boo muytulee jafe-jafe. no danañ am jafe-jafe hmm. mën nañ ko wax. ndax bu fekkee ne yow da nga nekk dëkk bu ñuy wax Sénégal. say commerce li ci ëpp importation la yow defaroo lu bëri fan ka daan jëlee fañ ka daan defaree nekk na dëkk boo xam ne dañoo am jafe-jafe wér gu yaram ba. talu ñëw liggéey usines yañ ko doon defee talu ñëw liggéey. Hmm. wala usines yañ ko doon defee sax far nañ ko tëj. Hmm. léegi lu waral loolu. de feebar bi. parce que lu waral laaxu quatre-vingt-dix pour cent Chine. non est-ce que mu leen feneen fu ngeen. beneen solution est-ce que am na bien sûr man peut-être beneen feneen am na mais li am laa lay wax. xam nga danga ne yéen nu ngeen koy jàngatee wala na ngeen ko yëgee. Mhm. ma lay wax li am. Mhm. li am mooy importation yi nga xam ne moom mooy moom la commerce def ci Sénégal commerçant yi di ko def li ci ëpp li ci ëpp Chine lañ koy jëlee. ci Sénégal ci Sénégal. léegi nag bu fekkee ne li ci ëpp marchandise yi nekk Sandaga marchandise yi nekk Ocass marchandise yi nekk marché central ainsi de suite ainsi de suite bu fekkee ne la ëpp yooyu la Chine lañ koy jógee. Mhm. Chine lañ koy jëlee Chine googu bu demee ba amatul. Mhm. liggéeyatul. Mhm. marchandise dana manqué. dëgg la xel mu rafet rekk ko nangu. Mhm. Chine googule bu demee ba commercant bi nekk Sénégal doon jëli marchandise ba amatul droit jugee Sénégal. dem Chine waaw jafe-jafe ñëw na. wala conteneur am droit jugee Chine ñëw Sénégal. wala conteneur am droit jugee Chine ñëw Sénégal jafe-jafe ñëw na. léegi marchandise ya nga xam ne nag moo nekkoon ca. stock dépôt yo li ngeen stocké woon. waaw bu fekkee ne euh, euh, conteneur duggatul. ka doon commandé. commandeetul parce que ka ko war a defaral defaratul. Mhm. looy def da ngay lam laal sa stock. Mhm. waaw léegi boo laalee sa stock. Mhm. di ko laal tey suba nga laal ko ginnaaw suba nga laal ko dafay wàññeeku. mën naa dem jeex sax. mën naa dem sax ba jeex. li ñuy wax pénurie ci ci ci tubaab. léegi nag pénurie moom produit fu mu mënti nekk rek. loolu moom jarul kenn di nekk économiste pour xam ko. fu fu manqué manqué amee rek. yokk-yokk am yokk-yokk mën na am mais bu demee ba ba jeex si li nga stock comme ni nga ko waxee woon sànq. gën a métti boobaa lan mooy solution bi. ah déet solution bi moom. avant ñu yegg foofu lan mooy ne war a nekk est-ce que loolu yéen a ciy xalaat. non ñun ñu ngi ciy xalaat mais xam nga li ma la wax moo ci nekk dañoo nekk ci dëkk boo xam ne importation bi li ci ëpp li ci ëpp. ñun bokk ci ñun nga xam ne ñoo bokk association des commerçants industriels du Sénégal li ëpp ci li nga xam ne moom la ñu importé ci wàllu produit mhm. secteur boo mënti dem Chine la jógee Chine la jógee mais est ce amoon ngeen tey par exemple tey bu dee Chine dafa dem ba tagatémbe mais est amoon ngeen beneen réew boo xamante ni jàpp ngeen ne ngeen faa jëlee bien vrai que la ngeen doon am Chine mën ngeen ko bañ am foofu xam nga tubaab dafa ne dañu euh, mhm. jii maa la koy wax sànq xam nga tey jii ñu demee ba yaakaar sax ni smartphone téléphone smartphone. Mhm. danañ dem ba dana manqué ci àdduna bi. Mhm. parce que fañ ko daan defee moom jafe-jafe. Mhm. kon kay ñun feebaru Chine feebar bi nga xam ne am na Chine te léegi mu law ci àdduna bi yëpp nekkul économie Sénégal bi rek la laal. lu laal yeneen réew yi. Ah, de dafay la laal na yeneen réew yëpp sax. maanaam comme Chine euh, Chine est-ce que kon dafa coiffé woon maanaam économie àdduna bi. ah ci dëgg-dëgg de moom feebar bi wane na ne moom kenn mënta wax économie àdduna. te tuddoo ci dëgg-dëgg. d' accord bi wane na ko. d' accord léegi euh, Pape Modou dañu gis ne comme li nga wax ni sànq dafa nekk mbir moo xamante ni mu jara euh, jàngat la mais mbir tamit la moo xamante ni mu jara bàyyi xel maanaam euh, fagaru dañu gis que ne état bi ñoom ñoo ngi jël rek ay matukaay ci lu jëm ci wàllum wér-gu-yaramu doomu aadama bi. maanaam di jéem a xool nan la ñuy def ba yokk bërëbu fajukaay loolu lépp lu am njëriñ la te ñu leen ci encouragé aussi mais est-ce que yow jàpp nga ne ministre du commerce walla état bi ñoo ngi prévoir que ne. jamono mën naa ñëw wala ay weer ci euh, ci ci kanam commerçant yi dootuñu mën a andeeti la ñu doon indi te njëg yi mën naa toll niveau boo xamante ni tey mën naa jéggi dayoo est-ce que yow jàpp nga ne état bi ñoo xalaat ci ci cas de figure boobu. ah tubaab dañ leen gouverner c'est prévoir. Mm-hmm. xëy na danañ ci ñëw sànq sax léegi nii ci kanam ci mm-hmm. wàllu mbuus yi. Mm-hmm. tubaab loolu la wax. mooy képp koo xam ne da nga jiite ay nit. di jëmale réew ma kanam mooy danga war di bàyyi xel li nga xam ne ñëwagul. mais est ce bàyyi na ko xel pour yow. a ah, du ma conseil ministre bi nag du ma conseil président. mais est ce que ministre bi rencontré na leen daje na ak yéen commerçant yi. no fu ñu toll ñu ngi waxtaan. parce que mooy suñ ministre de tutelle. Mhm. mais war ndax waxtaan ngeen ci actualité bi. ci actualité bi. Mhm. no wax waxtaan nañu fan yële. Mhm. mais la waraloon waxtaan wax dëgg yàlla. doon actualité bi doon actualité bi mais actualité bi ndax waxtaan ngeen ci. mais ñun de rafet nañ njort ni. ministre bi. ca la nga xamante ni moom la féetee ca wàllam mhm. ak président bi la nga xam ne moom la féetee ca wàllam ñun rafet dañ jort ne ñun waa ACIS mhm. ne ñoom ñu ngi ciy def kéemtalaay kattan mhm. pour au moins ñu war ko mën a bàyyi xel xam ne kat ka nga xam ne moo ñu daan defaral ñuy indi di jaay bu defaratul war naa mën a mais yéen a ngi dem Chine ak ñëw ba tey déedéet déedéet dematu leen Chine ah déet foo jëm léegi amatul conteneur yu jógee Chine di ñëw Sénégal de foo foo jëm déggoo yow mi doon jënd conteneur bi dematoo. Ah. te yow ma doon commandé ka nga waroon a commandé pour mu defaral la defaratul. waaw ah. ah déet. waaw mais nag euh, kon yéen moo nag yéen yéen am na ci loo xamante ni kon. Euh, yéen seen responsabilité lay doon yéen xam ngeen yéen mënatu leen a dem Chine. mais problème boobu lan moo tax soulevu leen ko euh, maanaam tegalu leen ko ci taabalu ministre bi mu ngeen na koy léegi ñun Chine lañ doon dem même bu dee moom peut-être xam na loolu. ngeen ne ko Chine lañ doon dem Chine defaratul. te li ñu yor dina toll foo xamante ni njëg yi mënul ñàkk yokk est-ce que loolu yéen ngi prévoir. loolu xam nga xam nga boo mbaay boo ma bàyyi xel sànq dama koy dama la koy wax sama sama biir wax nee naa la li laal bourse yi gën a mag ci àdduna bi ba tax fépp di rouge fépp di xonq waaye bàyyiwul Sénégal parce que nous sommes dans une économie mondialisée foofu lañ toll ci àdduna bi. àdduna mm-hmm. bi fi mu ne nii lu laal keneen rek day laal ka ca des waxuma la nag mu laal mastodonte bu toll nii Chine. Mm-hmm. loolu la donc tey jii du du gouvernement yi dañoo ñàkk xalaat wala dañoo ñàkk prévoir parce que bu fekkoon loolu la xëy na kon euh, CAC 40 du am chute bu toll noonu bu fekkoon loolu la. bourse Paris bi du am chute euh, bu toll noonu bu fekkoon loolu la bu bu bu New York bi du am chute bu toll noonu ainsi de suite ainsi nag gouvernement yooyu ñu ngi xalaat ñu ngi bàyyi xel ñu ngi prévoir xëy na. Uh-huh. mais dafa fekk ni loolu bett da lay mën. mais est-ce a ngi am ay information que ne Chine seen usines yi commencé naan liggéeyaat wala. waaw dëgg-dëgg léegi la ñu jot yenn information yoo xam ne moom wax dëgg yàlla ñu ngi commencé waaye nag. commencé bi it nekkul commencé boo xamante ni war na mën a tax ñu mën a am une grosse quantité kam d' accord léegi euh, dañu dégg ñu ne am na ay sénégalais yoo xam xamante ni tey ay commerçant sénégalais yoo xam ne euh, jënd nañu ay conteneur ba pare ñu bloqué ko Chine ndax information boobu lu wér la. waaw no c' que boo déggee ñu bloqué ko Chine lu war a mën a nekk la xam lu tax mu war a mën a nekk. Mm-hmm. yow bu fekkee ne da ngaa jënd conteneur ci ay bagages. Mm-hmm. yow yaa ko waroon jëli wala boog ña defoon commande ña leen doon liggéeyal arrêté nañ seen liggéey ba kon doo am ku loo jëlal sa conteneur yi dugalal la ko ci bato yi mu ñëw. Hmm. parce que Chine nit ñi génnatuñ nit ñi dematuñ fen hmm. donc dafay dafay dafay yenu maanaa bu bu la fekkoon yow nga jënd conteneur ba pare conteneur bu du mën a ñëw. Hmm. parce que dañ leen mettre en quarantaine. Euh, jërëjëf euh, Pape Modou géey moom mbokk yi moom la ñu invité tey ci seen émission pencum euh, réew mi ci rajo Réew mi FM émission bi nag daawul am appel mais tey danañu ubbi antenne bi. ndax euh, tey am na ñoo xamante ni tey peut-être ay commerçant lañ wala ñenn ci askan bi ni ñu déglu bu ñu bëggee wax seen xalaat ci mbir mi ndax ñi ñu invité tey ñoom ay mbootaay la mbootaay la goo xamante ni tey dafa ëmb ay euh, associ commerçant euh, commerçant ak industriel yu Sénégal maanaam seen mbootaay googu la ñu invité tey ndax dégg ngeen ni mu ko waxee sànq ñoom dematuñu Chine ngir indi li nga xamante ni tey mooy ay marchandises ci ci Sénégal te loolu euh, am na fu muy toll foo xamante ne mbir mi mën naa jéggi dayoo mais tey euh, Modou est-ce que am ngeen plan B ci bu ci bu coronavirus bi duré waatee su demaatee ay weer ci kanam. ah déet nañ euh, cekkeen bi nag nañ ñaan yàlla rek. waaw nañ ñaan mais mu mu yem fi. parce que ah. ci dëgg-dëgg nag. Mhm. bu continuer moom. Mhm. dana doy waar trop. maa ñaan nañ bu ñu sañoon tey mu de jeex ci àdduna bi mais tey ah comme li nga wax sànq que ne gouverner c'est prévoir. Mhm. il faut que tamit ñun tim ñuy waaw xam nga lu tax ba continuer dana doy waar. waaw bu fekkoon ne dafa yem Chine kese. Mm-hmm. feebar bi. Mm-hmm. wala ku ku ku tukkiwul feneen fu dul Chine doo am probabilité nga nga ñu wàll la ko wala nga wàllaate ko. Mm-hmm. konoon mën nañoo wax ni nañ te Chine te dem ci yeneen dëkk yi. mais tey foo jëm. ndax tout le monde est exposé. moom kay doy na waar doy waar goo xam ne moom tey jii bu fekkoon ne dañ ne Chine rek la yem. wala lu xeetoog Chine. Mhm. da nga naan code su ma tëjee Chine naa dem France. Mhm. naa dem États-Unis naa dem Italie naa dem Espagne naa dem feneen ak feneen. Mhm. mais tey jii ka daan jëndee Espagne sax matière première. dana buñ fii ak ay fan ci kanam dootu dootu ñemee commandé Espagne. Italie la même chose. feneen ak feneen la même chose. moom kay nañ ñaan yàlla mu yem fi. mais li wér te moom man ni ma jàppee Chine. pour man la Chine et véritablement. l'industrie au niveau international c'est la Chine. waaw euh, ñi bëgg a wootee bu ñu defee 88 628 84 84 danañ mën a dugg ci émission bi 88 628 84 84 loolu mooy numéro téléphone bi su ngeen si jaaree wala 88 628 85 85 88 628 85 85 léegi euh, Pape Modou Gueye yéen commerçant yi commerçant ak industriel yu Sénégal ndax jàpp ngeen yéen li ngeen yor si stock jàpp ngeen ne ñaata weer ci kanam. su dee commencé waatu leen di wuti marchandise Chine wala ci yeneen réew njëg yi dina yokk. waaw euh, posé nga. si seen xayma yéen posé question bu am solo. lii sunu secretaire général wax fa waxoon fan yële ci beneen rajo rek dinaa ko féddali ndax dafa waxoon lu am solo maa ngi koy nuyu de passage di ko remercier encore une fois ci xereñ geeg euh, implication bi ci association des commerçants industriels du Sénégal dafa waxoon ni bu ñu ko xaymaa. fii ak ñaari weer wala lu mu yées mënta yées ñetti weer te bagage lu manqué ci ci ci marché yi commencé na ko déjà bagage moom commencé naa ñàkk. Mm-hmm. donc buñ dawalee fii ak ñaari weer dana gën a ñàkk. Mm-hmm. bu fekkee ni li xew jógee fi. Mm-hmm. dana gën a ñàkk. te su boobaa bu gënee ñàkk comme li ma la waxoon sànq rek fu ñàkk marchandise am rek yokkuteeg marchandise man nañ ko faa séntu. te yokk gi jàpp nga ne mën naa jege dayoo. loolu kay mm, euh, jarul jarul ngay nekk expert en économie pour comprendre ko. Hmm. yow bu fekkee ne la nga dencoon ci stock mu toll ci nangam ci lim. Hmm. yaa ngi koy roppat di ko jaay ndànk-ndànk. am na ci sax tey ñoo xam ne ku ñëw di jënd ci ñoom yenn quantité yi sax duñ la ñemee jaay yenn quantité yi. Hmm. ndax ñu ngi xalaat ëllëg est-ce que duñ ko manqué dem déet. nga xam ne jafe-jafe am na. d'accord loolu daal la bëggoon a wax sànq nii te loolu nag man pour man jàpp naa ni sax. Euh, waaw ñu jël mbokk mi euh, Pape Modou asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum allo euh, dem na 88 628 84 84 léegi Pape Modou comme li nga wax ni sànq dafa nekk loo xamante ni lu am solo la mhm. ndax tey commerçant yi tamit dafa am lu baree bari loo xam ne yéen dañu leen koy faral di tuumaal mooy bu ngeen gisee yenn cas yu présenté wu rek da ngeen jël seen marchandise mépp ngeen ngeen rënk ko euh, ngir ngeen xool euh, ndax commerçant yi dañoo mën a jël ay risques yéen a gën a mën a jël ay risques euh, ngeen ne tey par exemple rek fii ak deux mois fii ak ñaari weer naa denc sama bagage peut-être tey njëg gi toll na si nangam bu ñu demee fee naa toll si nangam ma denc sama sama bagage. Hmm. est-ce que jàppu ne am na waaleykum salaam. sëñ ñoo ngi sant baax kooku. Seck Mouride ginnaaw raay. waaw Seck Mouride na nga def. ñoo ngi leen di siyaar bu wér a wér a wér. Seck Mouride ñu ngi siyaar bu baax. allo. allo Seck ñoo ngi lay dégg waaw. man ñoo ngi leen di siyaar bu wér. jërëjëf. te di leen laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram yal leen ko yàlla defal defal nu ko. macha allah jërëjëf. waaye gis nga coronavirus bi. waaw. yal na yàlla def jàmm ba mu gaaw a jóge ci réew mi jóge ci réew yëpp. waaye commerçant yi ci seen bopp. nañu seet ci yàlla te xam ni aw naqar yàgg na ci àdduna jafe-jafe yàgg na ci àdduna waaye buñ ci profité mukk di jéem a yokk seen mbar te di bëgg luñ ci am. non góor góor lu te muñ te xam ne lépp dana jeex. Mm-hmm. doomu adama nag ci boppam boo ko sunu borom ëndee ci jamono ba léegi toujours ay jafe-jafe la koy teg ak i natt. Mm-hmm. waaye natt natt yi ne ko muñ ñoo yàlla man daal loolu laa am lu ma ci duggee wa salaam. jërëjëf jërëjëf. du euh, Pape Modou 88 628 84 84 ñi si bëgg a participer li ñu waxtaan ndax tey euh, commerçant yi la ñu invité ak euh, taxawaay seen taxawaay bu am solo bi nga xamante ni ñoom am nañu ko ndax ñooy indi marchandise bi ci Sénégal li ma la wax sànq mooy est-ce que amul ay commerçant wala yow njortoo ne am na commerçant yoo xam ne am na ñu seen stock boo xam ne dañu ko denc pour en bu marchandise bi gën a yokk. man de jàpp naa ne commerçant au Sénégal kenn gënu leen a patriote kenn gënu leen a patriote. ñi bokk ACIS te ñëw nekk association des commerçants industriels du Sénégal it xam naa ne kenn gënu leen a patriote soo déggee ma wax la loolu mooy nii yaa ko wax sànq dañoo ñemee jël risque kenn kenn kenn dàqu leen nag jël risque. waaw commerçant yi. xam nga ñaata nit tey jii ñoo fi nekk yore mm-hmm. seen i millions toog ci. Mm-hmm. tabax seen i kër. Mm-hmm. toog ci wala nekk ci leneen. yow nga jël say million yóbbu ko ci ab dëkk jënd fa bagage boo xam ne booy ñëw Sénégal doo xam xam-xam sax ndax danañ ko jëndam duñ ko jënd. benn ñaareel ba nit ki nga xam ne dafay def investissement buñ demee ba toll ci jamono yu toll nii bu fekkee économie la ñuy wax euh, économistes yi nañ ma parce que du ma mais bu fekkee économiste économie la ñuy wax bu bu bagage nekkee fenn su fa manqué mën nañoo njort ne bu manque ba continuer war naa mën a yokk ci prix ba loolu tekkiwul ni commerçant wu Sénégal bi mooy profito ci situation boobu pour yokk tekkiwul loolu parce que bu fekkoon dañuy profito ci situation di yokk konoon bañ ko yokkee yàgg na ndax ba feebar ba xewee bu muy bëgg am ñetti weer donc duñ profito ci benn situation parce que xam nañ ne ñun ay sénégalais lañ te ñi nga xam ne ñooy ñëw ci si boutique yi di jënd wala dem ci magasin yi di jënd suñuy yumpaañ lañ suñuy tante lañ suñuy rakkale. Mm-hmm. loolu la. d' accord léegi yow fi mu ne nii euh, ndax jàpp nga ne am na marchandise boo xamante ni jot naa commencé yokk yow boo xamante ni wala même bu yokkul boo xam ne jàpp nga ne jot naa manqué ah, ah déet manqué kay bëri na ah. su ma ko émission bi jeex de mhm. comme yan yoo xamante ni jàpp nga ne tey non bëri na secteur boo mënti dem rek secteur boo laal rek seen marchandise mu ngi commencé manqué secteur boo laal nag mais yokku gu leen déet déggoo li ma la wax mënuñoo yokk ndax su ay sénégalais lañ te ñiy jënd si ñun ay sénégalais lañ suñuy jarbaat lañ suñuy doom lañ wala suñuy tante lañ wala suñuy yumpaañ lañ wala suñuy papa lañ duñ profité mukk ci situation bi di yokk mais dama ni bu fekkee ne dañuy wax économie mm-hmm. nga jënd dara am ko di ko jaay di ko roppat di ko roppat di ko roppat di ko roppat ba muy waaj a jeex wala boog ba mu jeex lépp loo xam ne jeex na mën nañoo war a wax ne kat. d' accord lu manqué cher. d' accord jërëjëf. parce que euh, lu raar sax dafay cher. waaw léegi euh, ñu fas yéene jàll ci euh, benn laaj rek ci mbir moomu ñu doog a jàll ci leneen xam nga sànq yow da nga wax ka ne maanaam mën nañu ko xayma ci quatre vingt dix pour cent ci marchandise yi nga xamante ni tey mooy dugg ci réewum Sénégal. Chine lay jógee Chine lay jógee. Hmm. léegi bu jàngoroy coronavirus ji jàllee si jàmm ak yëpp est-ce que tamit ñun mënuñoo xalaataat ndax bu dee ñun li ñu fiy dugg lépp ci bennum réew kese kese kese lañ ko yaakaare wala la ca ëpp wala ñun mu amuñu yeneen matukaay yoo xamante ne ñun ñoo ko jëlal suñu bopp wala solution amul. wala ah. lu munul ñàkk la Amadou. <laughs> sëñ Seck nag wuyu ma. Mhm. loolu nag moom du ñun rek. Mhm. loolu moom. mais ñun mais ñu jéem a trouver solution. xool loolu moom du ñun rek. wax naa la ko léegi nee naa la daanaka usine u àdduna bi mooy Chine du ñun rek de. dëkk yi nga xam ne ñu ngi fiy jëlee di Chine du jeex du xaj li tax tey jii Chine am problème rek bourse àdduna bi yëpp am problème loolu la du ñun rek léegi nag. Mm-hmm. li olof naan du man rek bokkuma caa ko gën. waaw wala yow. non non xam nga tey par boo demoon boo France wala nga wala nga beneen beneen réew mën na wax na la 30 pour cent marchandise bi dugg ci réew mi. wala ñu mën la 50 pour cent mais yow boo ne 90 pour cent presque 100 pour cent. waaw mais Sénégal lañ nekk nag nous sommes un pays sous-développé nekkaguñ ci yenn nii développement yi ñu ngi bokk ci émergence sax la ñuy wax. Mhm. d'accord. Mhm. léegi bu fekkee dañoo nekk ci dëkk boobule. industrie bariwu fi amu fi sax daanaka. ci Sénégal defaruñ lu bari. Mhm. importation rek dañu mën a def. d'accord loolu rek la. jërëjëf léegi moo tax suñu situation di gën a métti. par ah, rapport ak yeneen ñi nga xam ne dañuy defar euh, euh, lu jëm ci mbirum euh, industrie ci Sénégal yow noo ko gisee. waaw ñun de ni ñu ko gisee. au niveau de l'association des commerçants et industriels du Sénégal ma fàttali rek ni ci foire internationale bu Dakar bi Euh, bis ba nga xam ne jëloon nañ ko fa jaglee ko commerçant yi dañoo amoon benn thème bu doon waxtaanee mooy économie informelle wala boog secteur informel véritable passerelle vers l'industrialisation moo tekki lan ñun ci suñ biir ACIS dañuy faral di waxtaan ci commission scientifique boobu mu nuyu ki nga xam ne moo ko jiite Omar Cissé euh, dañuy faral di waxtaan ci naka la ñuy mën a participer ci industrialisation Sénégal naka la def ba. li gouvernement bi bëgg président bëgg ko muy toog ba Sénégal di defaral boppam yenn mbir yi naka ñun commerçant en tant que importateur naka lañ ciy participer te commencé nañ ko li tax mën ne la commencé nañ ko tey jii boo demee biir assis am na ci ay nit ñoo xam ne tey ay industriel lañ am ay usine de production fii ci biir Sénégal te boo jàllee ci ginnaaw ñaari at ci ginnaaw ay commerçant lañ woon dañ doon importer c'est très important ça veut dire quoi ñun li ñu xam ne moom la ñu bëgg. mooy ñu dem ba ay la yéwén la ngay jëlee say millions di ko def ci sa poche wala di ko def ci compte bancaire di dem Chine ak ni voyage métier ak ni Chine sore boo mënee dem ba am loo xamante ni da nga ko war a mën a defaree biir Sénégal fii moo lay gënal. Mm-hmm. parce que képp kuy investir ba nga am bénéfice. Mm-hmm. te la ngay daj ci tukki la ngay daj ci hôtel la ngay daj. ci fay ñu dug dugalal la ko ci conteneur la ngay daj ci fay ñu génne ko ci port bi la ngay daj ñu fay ci ci fay ñu jóge jëlee ko ci port bi indi ko sa boutique ku dem ba mën a am loo xam ne danga koy defaree fii jam ñaajo wala feneen ak feneen euh, marchandise ba jógee foofu ñëw ci sa boutique nga jaay ko sénégalais yi su boobaa sax ci la prix bi di gën a yomb te bu boobaa bu prix bi gën a yomb xëy na yow mi nga xam ne da nga doon seet loo am ba tax nga investir sa xaalis oh, loolu loolu eh, mbiru industrialisation boobu nga wax noonu hmm. yow ban politique nga gis ne politique bi si nguur gi def ndax jàpp nga ne politique bu jaar yoon la non man politique bi ma gis mooy accompagnement bi c'est-à-dire c'est-à-dire euh, tey jii jóge ci àll ba indi juróomi junni Dakar. di góor góorgóorlu ba am magasin di góorgóorlu ba nekk importateur. ba commencé denc tuuti ab bénéfice. kooku yaakaaroo ne bu ko gouvernement bi xëccoon ne ko ah ay la yéwén yow de gis nañ ne fi nga jaar. gis nañ ne jugee nga fii ba yegg si fii. lan ak lan ak lan nga soxla pour dootoo dem importe ji waaye nga di ko defaree fii xam naa ne kooku ñu laaj loolu. am na ay xame Chine. wala am na ay xame Inde wala am na ay xame feneen ak feneen bu ko gouvernement am jàppale. accompagner leen accompagner ko. xame yooyu mu am. mën nañoo dem sax ba xamee leen yooyu noonu ak gouvernement bi ñoom ñëpp ñu ànd. teg li nga xamante ni moom mooy. Eh, est-ce que proposition bi état bi mos ngeen koo yeggee lu mel nii. ñun fu ñu toll li nga xamante ni ñu ngi koy war a def ñu ngi koy def mooy ñu ngi xelaat. di bind. mais est-ce que ñoom ñoo ngi si jot proposition bi. ah déet ñun nag bu ñu bindee. Mhm. wala ñuy waxtaan. Mhm. danañ dem ci nga xam ne mooy suñu ministre tutelle ñu waxtaan ak moom. Mhm. lu yàggul dara. moom laa tuddee vraiment ñu toog plus de d'une heure ñu toog euh, plus d'un tour d'horloge ñu waxtaan. waxtaan wu am sori wu am solo boo xamante ni tënk nañ sax ab këyit. jox ko ko ñu tubaab di ko tuddee mémorandum. ba pare wax ko ni ko kat lii ñu la jox nii kat danañ ci delluwaat ginnaaw gën koo xóotal ba nga xam ne ay documents yu am solo lay doon yoo xam ne dañ la ko mën a jàppale ci liggéey est-ce que Sénégal am na ay ay zone industrielle yu baree baree bare ci ci ci ci différentes euh, régions yi waaw non loolu moom espace yu mel noonu politique politique gu Sénégal bi fi ñu toll nii mhm. ku ne xam na gis na ne euh, créé nañ sax benn agence bu ñuy wax APROSI mhm. mooy agence boo xam ne moom mooy chargé wu de de la promotion des des de de des des des zones industrielles xam nga loolu bu ñu demee ba créer agence bu mel noonu zone industrielle am jam ñaajo mu ngi waaj am Kaolack mu ngi waaj am ci ren régions yi. mu ngi waaj am Touba aussi mu ngi waaj am Touba ay léegi dañ koy rafetlu. Mhm. ba pare nag ne loolu rôle état la. parce que état rôle mooy mu créer un cadre de d'épanouissement boo xamante ni économie bi dana wala boog économiste bi wala boog euh, investisseur bi dana ci mën a épanouir. d'accord donc cadre boobu comme mu ngi ci. Mhm. dañuy applaudir de deux mains rafetlu ko wax ne kat du yem foofu. Mhm. wala yemul rek ci créer agence boo xam ne moom mooy chargé wu loolu dafay continuer ba ci biir mooy ñaña war a jàppale ñu jàppale leen parce que ma jox la benn exemple tey jii bu fekkee da ngaa créer ay institution financière yoo xam ne dañuy def ay financement nga ñëw gis koo xamante ne nii xëy na yàlla da ko nattu musul xam investissement wala musul xam entrepreneuriat nga ñëw jox ko set millions wala huit millions wala dix millions mu xëy suba bàjjanam àbb ko ci dem génte keneen na keneen ñan ko ci mais du fay mm-hmm. parce que tout simplement fekkut mu nekk ci d'accord mais ki nga xamante ni nekk na ci moom mhm. am as tuut ba tollu fenn fi kooku defe naa ne moo gën a neex jàppale à ce que d'accord jërëjëf Pape Modou mbokk yi a ngi déglu réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h tey nag dañoo euh, invité association des commerçants euh, et industriels du Sénégal ñoom la ñu invité tey euh, bu ngeen bëggee dugg ci waxtaan bi mën nañu leen a may ngeen dugg ci ci 88 628 84 84 88 628 84 84 léegi Pape Modou wax nga lu am solo proposition yu am solo ak lu jëm ci mbirum industriel décentralisation bu leen ci état bi doon doon gungeek euh, xeet yu demee noonu tey euh, yéen seen kuréel gi di ACIS est-ce que lu mel ni dialogue national bi yéen dugal nañ leen ci walla gis ngeen seen bopp pour ngeen duggoon ci wax seen xalaat ndax tey réew mi kenn mënu ku leen kenn mënul tudd réew mi te yéen boolewul leen ci jamono ji. wax dëgg yàlla damay jàpp ne nag xëy na ACIS moom dafa judd rek nekk càppaaculi hmm. wala boog ma jàpp ni xëy na ba ñu juddoog léegi xëy na suñuy at bëree bëreegut ba xëy na gars yi xamuñu trop ba invité ñu invité wuñu leen si kii bi invité wuñu si dialogue national bi xam nga yéen seen euh, seen grève bi fekku ma woon Dakar mais Touba la ma fekkoon mais damaa gis niñ tëye ma ne leen maa yéen yan ko yan commerçant ñoo ñoo grève boobu nag boobu nag assise fa jaar waaw non boobu assise la booba après si laa dugg ma xool euh, xool leen euh, xam ne ñii la léegi lan moo tax boole wuñu leen ci te dañ ah, leen cee war a boole déet loolu koy ña koy organiser nga ko doon laaj mais est-ce jéemu leen see bokk ah, ah déet ah, da a bokk ci réew mi léeg-léeg bu ñu leen ci ah, boolul ngeen ñëw ne da ngeen ah, war a boole balaa ngay xam ne jéem nañ cee bokk wala boobu bëgg nañ bokk ci ba assis juddoo la nga xam ne moom la ñu laaj ci këyit ñu dem uti ko am ba am ko yemuñ ca de dañoo bind ay lettre institution bu nekk bu nekk ci Sénégal fii ñu bind la lettre kat ne la assis ay la yoon existe na këyit yaa ngi nii lu légal mais bien sûr mhm. léegi li ngay def mooy mhm. wanewu mooy lan mu ngi mel ne tey jii boo takkee jabar da koy siiwal pour ñu xam ne diwee sa jabar ndax bu kenn ñëw di ko di ko di ko di ko di ko di ko kii di ko mhm. waxtaan ak moom mhm. ñun nag ba nga xamante ni defaru nañ ba rafet mhm. ba këyit gañ ñu laaj ñu am ko dañoo jël këyit googu boole ko benn lettre par exemple yóbbu ci ministère du commerce ne ko kat salaamaaleykum ministère du commerce assis muy association des commerçants industriels du Sénégal kat na ci dëkk bi amee na leneen amee na keneen amee na keneen amee assis am na bu yow bu fekkee yaa ngi xalaat mën nga ne comme ni nga ko waxee léegi ah yéen assise kat yéen a fi defoon grève boobu. Hmm. grève boobu nga xam ne moo tëjoon Sandaga rap. Hmm. grève boobu nga xam ne moo tëjoon marché Ocass rap. Hmm. grève boobu nga xam ne moo tëjoon euh, marché central bu Kaolack rap. ak ainsi de suite. kon ñooñu le ah su ma dee euh, euh, jëlkatu dogal. war naa di leen bàyyi xel. di leen ci boole di leen ci boole. d'accord mais yéen yéen Aziz euh, ñu wax ci euh, question boobu tey vraiment nag jàll ci seen sachet plastique yeeg euh, yooyu noonu yéen yeneen kuréel yi nga xamante ni tey ñoo fi nekk comme yi nga tudd noonu sànq ay kuréel lañ yoo xamante ni nag doon nañ leen dégg ñu am benn dayo bi. mais jamono jii gis nañ ne yéen taxawaay bi nga xamante ni tey euh, yéen am ngeen yéen a ngeen di faral di tuumaal sax yeneen kuréelu commerçant yooyu que ne ay màgget ñoo fa nekk wala ay pa ñoo fa nekk wala ay ancien commerçant ñoo fa nekk <laughs> wala ñoo xamante ni nekkuñu ay commerçant en activité. non dañ leen waaw. Uh-huh. waaw yéen yéen a ne loolu lan moo si sa xalaat. bon mais déet loolu koy lii xalaat bi mooy sànq wax naa la ko xam nga euh, euh, ab ab ab liir bu juddoo nekk yi am na lu tax. mais est que ñeel li leen di tuumaal du wér lu wér la li tax du leneen lu dul mhm. ñun ku ñu mënti tuumaal it dañ naan la xoolal li nekk ci terrain bi wax naa la grève bi sànq bañ koy grève ñooñu nga tudd am nañ ci woon mhm. kon lu tax ña war ña ña bokkoon ca ñoom sax tëj du lenn lu dul mhm. xam nañu kat fi ñu toll nii tembe ci deux mille vingt bi wala boog ci deux mille dix neuf bi ba jàpp deux mille vingt bi ak at yi di ñëw assise xew li tax assise xew nag lu lu lu simple la naka naka sunu mag ña daan defee. Mhm. ñu di gërëm di leen sant parce que def nañ fi liggéey bu rafet. Mhm. ñun dañoo indi beneen doxin bu bees. mais mais ñële est-ce que ñoo ngi nekk ba tey ay commerçants en activité. ah déet loolu nag moom laaj leen ko mais ñun liñ xam moom. Mhm. liñ xam mooy ni ñoom ñoo ñu ñu ci bëri ci ñoom. ñëw nañ si yéen nekkatuñ nekkatuñ commerçant en activité. tey ña bokkoon ci ñoom. ñëw nañ si yéen. te nekk en activité. ñëw nañ ci ñun parce que xam nañ ne kat ci dëgg-dëgg. doxalin bi moom ñun ñoo ko sonn. mais est-ce que tamit tey yéen Aziz du ngeen nekk fii euh, ñëpp xam ne am ngeen doole ngeen bëgg di jaay doole euh, bu ngeen waxtaanee ak ministre bi mu xaw a dëgër ngeen ne da ngeen ni grève wala yu mel noonu. balaa ngay xam ne loolu du suñu mbir. ah non mën naa nekk seen mbir nag non mën naa nekk seen mbir ndax da ngeen fee grève ñëpp xam ne gis nga grève koy mujj sax tudd duñ koy bëgg tudd xamalu mm-hmm. mm-hmm. que ñun dañoo war a dañoo jàpp ni mm-hmm. ci dafa war a nekk loo xamante ni mooy mujj bu amee rek mooy sës nga ci miir bi. Mhm. waaw mais yéen da ngeen a xam ne da ngeen a xam ne pour non non non mais mais non mais ah, yéen assise xam ngeen ne bu ngeen amul doole du ngeen mën a jàmmaarlu ak nguur xam ngeen ne bu ngeen grévé mu def impact loolu moo tax yenn yenn est ce que du ngeen tegal état tamit yoo xam ne day diis si nguur gi ñun ñun gis nga ci waxtaan lañu ñu dëkk mhm. ci organisation la ñu ne teg mbir yi si yoon ngeen nekk teg mbir ci yoon la ñu ne mhm. bañ nañ ko ba kilifa gu ñu dajal sax du ñu dajee ak di ñëw di croiser le bras wala ñuy ñëw di la wax rek di ñaxtu fu ñëwee rek indaale nañ lenn loo xamante ni proposition lay doon. ay idée ngeen waxtaanee ko ko ku dul xalaat du ko def ku dul xalaat doo am ci sa biir li ñuy wax comi euh, commission scientifique ñoo xamante ne nii xëy na ñu ci bëri ci ñoom tey ji yàlla daf leen pousse ci commerce bi mais la nga xamante ni yàlla séq dënk na leen ko ci am njàng. muy ci alxuraan ci arabe wala muy ci français wala lu mënti doon. Mhm. yàlla sédd na leen ko ci xel yu rafet. d'accord mais est-ce que Aziz euh, nekk na organisation boo xamante ni tey bu organiser wu la ci ci yeneen région yi foo xamante ni foo dem rek am na fa bànqaas am fa bureau. fi may wax ak yow nii maa ngi nuyu waa Thiès bu baax a baax a baax a baax xam naa ne délégation Dakar bi mu ngi jógee fii pour dem Thiès pour ñu entériner li nga xam ne moom section Aziz gannaaw ba ko Touba defee Tamba def ko Kaolack def ko yeneen régions yi def ko. d' accord jërëjëf euh, mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM seen émission pencum réew mi ñu invité association des commerçants et industriels du Sénégal euh, Pape Modou Gueye ñu ñëw ci li nga xamante ni tey moom mooy euh, sachet plastique yi maanaam mbuus yi mu nekk yéen loi boo xamante ni 2015 lañ ko fi voté woon ñu gis ne bañ ko fi voté ak yaafus goo xamante ni mën nañ koo jàppee noonu état bi moo ko ci moo ko ci wane amul dara loo xamante ni lu si soppeeku la. ñu gis ne am na ministre boo xamante ni bu ñëw bu ñëw la Abdou Karim euh, Fofana. Abdou Karim Sall Abdou Karim Sall. Mhm. Abdou Karim Sall bi mu ñëwee nee na euh, fii ba 20 avril la leen may pour lépp loo xamante ni lu ngeen yoroon la ci ay mbuus ak xeetu plastique yooyu ngeen fexe mu dañ ci seeni loxo euh, loi boobu noonu bi ñu ko fi wotee 2015 yéen lan moo tax tënkuwu leen ci loi bi Pape Modou. laajte nga bu am solo. gis nga ñu leeral benn mbir tout de suite balaa ñuy balaa may dugg ci laaj bi mooy ne bu kenn wax ni commerçant yi nanguwuñ ñu defar alam bi wala nanguwuñ ñu defar jaww ji wala nanguwuñ ñu defar environnement bi déedéet bu ko kenn wax ndax wax naa la ko léegi kenn gënu leen a nekk patriote donc lépp loo xam ne dafay yàq suñu environnement ñun dañ koo dàq waaye waaye bu fekkee ne da nga nekk ci ab dëkk bu ñuy wax Sénégal xëy na ñu di ko wax un pays vers l' émergence wala boog sur les rampes de l' émergence comme ni ñu koy waxee nga defar benn loi 2015 ne tere naa fi mbuus boo xam ne 30 micronage wala cinq micronage yow nga defar loi bi 2015 ne tere naa ko fi. Mm-hmm. yow commerçant bi. yow ma daan indi loolu ñu tere mooy mbuus boobu nga xam ne trente micronage la wala trente cinq micronage parce que loi bi loolu la wax nga ne ay la yowén man kat comme loi bi wax ne lii te wasan nañ ko man banaa ko dootuma ko indeeti Sénégal donc mbuus moo xam ne moom xeet góog la mooy trente micronage yooyu ñuy wax yow commerçant bi indeetoo ko la ngay indi rek mooy lu yées loolu mooy lañ aayewut da ngay jàpp ne aayewuñ loolu mhm. mooy trente cinq micronage jëm quarante micronage commencé ko est-ce jéggi euh, charte yi wala boog est-ce teggi yoon bi wala boog est-ce que da ngaa yàq loi bi wala boog da nga dëggaate ci sa tànk déedéet. déedéet lañ la aaye. moom nga baax. Hmm. waaw état bi bu teree mbuus gu bëla sañ ngeen ni mbuus gu ñuul. déet dama ne état bi. dama la jox misaal. misaal mu ngoog bu ne léegi bu fi kenn indi ti mbuus gu bëla. kon bëla la tere. bëla la a indi. léegi nag mu ngoog bu nee trente micronage. Mhm. yow nga ne kat xeej bii mooy trente micronage. Mhm. nga fexe ba yow indiwtoo loolu. Mhm. lépp loo indi quarante la jëm kaw kon yaa ngi ca loi ba. waaw mais loi bi nan ni ñu ko tëggee kon noonu moo di moo moo ah déet laaj leen ko ñoom ñu ko tëgg léegi nag bu jamono di dox. Uh-huh. ba ñu dem ba deux mille vingt. mais non ñëw si loi boobu noonu léegi loolu lan la mën a nekk ñoom lan moo tax ci loi waxuñ mbuus rek. ah xëy xëy na dañu buñ ko. wala ñu wax catégorie bi noonu lañ ca mujj a gis. Ah. la loi a tere. Uh-huh. mooy loi bi nga xam ne moo tray euh, moo moo tere woon trente micronage. léegi mais yéen trente micronage bàyyi woon ngeen ko yéen. mais c'est clair ah bee ko wax de. bàyyi ngeen ko te ay boo nekkee patriote ab loi ne nangam la uh-huh. nga nekk citoyen sénégalais uh-huh. loi bu kay boo ko bëggee respecté dangay ngay bàyyi lam tere léegi bàyyi ngeen lam tere léegi kon lan moo taxaat ministre bi jóg di dal nii doo déet dafa soppeeku waat ci biir loi bi ah, lan moo soppeeku li ci soppeeku mooy xam nga dañ doon aaye trente micronage wala lu lu ko tolloog moom fi mu nii dañ ne mbuus far faf mbuus bu mu ñëwati dañ ko dugalaat ci loi bi biir loi bi loi bi kay ci tënk mhm. li mu wax mooy faf mbuus moom mhm. bu mu fi duggati d'accord léegi nu ngeen ko gisee loolu. bu xeetoo mbuus. Mhm. léegi seen seen xalaat ci loolu. jafe-jafe bi foofu la ne xam nga li tax jafe-jafe bi na fa. Mhm. sànq yaa ngi koy wax ci biir wax mooy gouverner se prévoir man dama ne gouverner c'est communiquer. c'est communiquer waaw ñu jël mbokk mi euh, asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi tur beeg fooy wootee. mbokk mi ñu ngi leen di nuyu. ñu siyaar nañ la bu baax. ñu ngi lay delloo siyaar tur bi. Khadim Fall Sandaga. ah waaw Fall Fall Fall Fall. ça va na def. ñu ngi sant bu baax Fall. waaw damaa bëggoon a intervenir. tuuti ah, rek ñoo ngi lay déglu sa xalaat waaw. si waaw ci wàllu loi bi. parce que souvent damay dégg ñu naan loi quatre vingt euh, deux mille quinze bi dafa interdit sachet alors ko loi boobu interdit woon sachet mais dafa am type de sachet bu mu interdit woon. Mhm. muy sachet bi nga xamante ni dafa inférieur à trente microns. trente mhm. microns. Mhm. c'est-à-dire micronage bi. Mhm. du yées trente microns jëm suuf. bu bu bu commencé trente jëm kaw rek boobu loi bi autorisé na voilà boobu ci lañ doon liggéey. boobu moom lañ doon liggéey te boobu tam yi mu concerné woon mooy yi nga xamante ni moom lañ naan bretelle mooy yi am jàppukaay mais mbuus boo xamante ni amul jàppukaay sax. quel que soit micronage bu mu mën a doon loi bi interdit wu ko woon. Uh-huh. loi bi yi mu interdit woon mooy bretelle boo xamante ni day inférieur à trente microns waaw léegi nag bi ñu continuer di liggéey ci boobu bi ñu autorisé li waroon ministre bi mooy bi mu demee ba am projet de loi pour interdit sachet ñi nga xamante ni ñu ngi doon liggéey ci ci ci ci trente micronage bi plus de trente micronage bi jëm kaw mu woo leen waxtaan. xamal leen ni dafa bëgg dugal projet de loi boo xamante ni dafa bëgg a interdire mbuus yaa ngi dégg bu ko hmm. defee ñoom ñu mën a préparer wu pour ci li nga xamante ni après moo moo war a mën a remplacer mbuus hmm. mais yow nga xëy rek jël sa projet de loi yóbbu ko hmm. alors que nit ñi defoon nañ seen i seen commande mbuus parce que commande mbuus dafay jël temps mbuus su nga ni boo demoon nga commandé ji temps bi ñu la koy liggéeyal ba muy agsi mhm. mën na jël ay deux mois mhm. jege trois mois mhm. yow léegi ngay voté sa loi nga ne léegi dans trois mois dinañ interdit mbuus yi totalement alors que am na ñoo xamante ni seen seen conteneur ba léegi duggagul d'accord ni ngi ñu bloqué ci bi aussi am na stock boo xamante ni ñu ngi ci biir dëkk bi jaaye jaaye buñ ko xam nga loolu ça pose problème d'accord jërëjëf sëñ bi leer na macha allah Euh, jërëjëf euh, waaw euh, léegi mbuus yi léegi lan mooy problème bi. moo xam nga ki ki dugg léegi ñu ngi koy gërëm bu baax sëñ Fall. daanaka dafa didi sama lañ ci mhm. moom laa doon bëgg wax sànq. Mhm. xam nga li mu wax sànq dafa am solo. trente micron na trente yooyu ñu waxoon. wala lu ko yées waratoo ko indi moom la loi 2015 bi waxoon. Mhm. ñu bàkku fa. di indi li nga xamante ni moom lañ terewut. boo demee ba gis ne kat. ay la yéwén fi mu ne nii kat yii nga xam ne man nangu woon naa ñu di ko indi. Mhm. mënatul ne. Mhm. mënatul ne. waaw ña nekkoon lu gënoon a rafet. bu fekkee ne gouverner c'est prévoir. Mhm. woo leen waxtaan ak ñoom ñu xool. moo tax ma ne gouverner man. c'est communiquer uh-huh. mais wu wuñ ak yéen. te communication li li li li nit ñi war a bàyyi xel bokkul ak information. parce que man dama jàpp ne Sénégal li ci bëri information la ñuy def ndax dañuy def mbir ba pare génn wax ko. Mm-hmm. communiqué woo da ngaa joxe information. communiqué woo da ngaa joxe information parce que def nga ko ba pare. Mm-hmm. loi bi it dem na euh, fële na le euh, assemblée nationale bañ promulgué ko ba pare ba fi mu ne ni application bi rek ci des ñu war koo def le 20 avril jafe-jafe ñëw na. ana ña nga xam ne ñoom nga waxoon ne leen kat dee leen indi xeetu mbuus yi fuñ ne ñooñu ñoonu nga xam ne ay sénégalais lañ te yow yaa ne man damaa bëgg Sénégal jëm ci kanam te yow yaa ne man kat damaa bëgg Sénégal am industrie. te ñoom ñoo xam lan lañ commandé. déet non ñoo xam lan lañ commandé wala laajoo leen lan lañ commandé laajoo leen ñaata conteneur ñoo nekk ci port yi te gi dugg te ci biir Sénégal. Mhm. laajoo leen ñaata camion ñoo nekk ci frontières yi. Mhm. te te duggaguñ biir Sénégal. Mhm. laajoo leen ñaata lañ investir ci commande. loo xam ne ñëwagut. laajoo leen laajoo leen ay milliards la. ay milliards la léegi nag bu fekkee ne yow. da ngaa nekk nguur xëy na jamono toll na foofu foofule. mais bu fa jamono tollee nga def ñi say moroom di def ni say morom di def mooy lan. Mhm. Euh, gis nga li ñuy wax nii. Mhm. beneen dëkk bu koy def. Mhm. daf koy def li tubaab di wax d'une manière graduelle. c'est-à-dire la di ko def tepp tepp. ndànk-ndànk du du tëb rek ne. dama koy dindi fii yëpp. d'accord mais Modou mm-hmm. Pa Modou nga baal ma nga baal ma léegi tey loi bii nii. Mm-hmm. le 20 avril bi mm-hmm. maanaam ministre bi avant muy jël dogal boobu état bi. laajuñ yéen commerçant yi. Mhm. ñaata ngeen commandé ak procédure laajuñ leen si dara yéen. Euh, dinaa la wax benn mbir man jàpp naa ne. Mhm. buñ xamoon li ci xew yëpp. Mhm. duñ ko defee noonu niñ ko bëgg a defee. parce que euh, së sëñ Omar Cissé dafay faral di wax ne euh, màcc nu dimb. dana tax dimb weex. na ngay màccee sa tàngal yow. dana tax sa tàngal ba weex même mu saf saf suukar. mooy lan façon bañ ko nar a defee. Mhm. loolu moo doy waar. waaw encore une fois. Mhm. ñun bañu ñu ñu defar alam bi bañu ñu ñu defar environnement bi. waaw mais defarin ba nañ ko nar a defaree loi bi loolu moo doy waar. ndaxte bu fekkee da nga nekk ci dëkk boobu le nga xam ne lii nii kat su ma leen fi jëlee ah trente mille emplois direct lay laal plus de sept mille entreprises yu ci nekk wala sept cent entreprises yu ci nekk yoo xam ne industrie lañ. ñuy defar mbuus dañuy defar ndox woo xam ne day am ci mbuus. Mhm. ak ñeneen ak ñeneen. imaginaire yow rek boo génnee sondage bi rek yow boo génnee ci mbedd mi ñaata nit ay xale yoo xamante ni pour ñu jënd fourniture suba bu école ubbee. Mhm. seen yaay yi wala seen tante yi dañuy dem ci jël ndox. Mhm. pour mën ko jaay pour mën a jënd. waaw ñu jël ki une minute ah une minute très bien une minute sëñ bi ah. allo salaamaaleykum waaw. salaamaaleykum. waaw sëñ bi na def. ñoo ngi leen ñu déglu la waxtaan mi ngi waaj a jeex heure bi waaw ci ci ci émission bi laa bëgg a dugg. waaw. maa ngi leen di di wax rek euh, ci problème mbuus yi. Mhm. wax ne état bi tey jii li ñu def ay nit ñoo xamante ni ay ndaw yu bokk jóg di liggéey di liggéey ci dara nga ñëw bëgg koo éliminer ci ne tegaloo leen dara ndax maanaam ñi ciy liggéey ku ci képp ku ci yor bagage bu bu nee ba la vingt jot ndax buñ fekkee bagage ci sa place ñoom dañ lay euh, dañ lay remboursé door a jël bagage. ak ñu ñu nga xam dañoo def seen seen ay ay millions yu bëri ci ci ci conteneurs yi. Mhm. ak ñu ci nekk la ban liggéey lañ leen war a war a mën a man daal loolu bëggoon naa bu fekkoon invité ngeen kenn ci ku bokk ci état mhm. man ma ma posé ko ci question boo xam ñoom nan lañ leen war a def. Mhm. maa ngi nuyu kiñ kiñ sëñ Modou mi ñu dalal di nuyu gars yi jaay ci buur yëpp di leen siyaar jërëjëf benn ndongal rek moo doon woote lu rek laa ci doon laaj jërëjëf sëñ bi gis nga Modou ñoom nee nañu état bi am na ay daan yoo xamante nañ ko si teg ak ay amende ak euh, mën a jël marchandise bi comme li sëñ bi doon wax état bi ñoom ci loolu non xam nga mais yaa ngi doon wax si ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ci mbuus yi ak usines yeeg yooyu c'est important ñooñu nañ leen bàyyi xel ce sont des sénégalais am waaw waaw te tey jii am na ci ñoo xamante ni ñu ngi créer ay industrie mhm. doon defar ndox mhm. mais ñooñu institution financière yi Sénégal mettre sur pied. Mhm. état wu Sénégal mettre sur pied ñoo leen financé. institution yi Sénégal yi. Mhm. ñoo financé ñooñu le pour bëgg ñu al ñu dem vers l'industrialisation pour bëgg sax temps yi nga xamante ni ndox dañ ko doon def ci mbuus yooyu noonu di ko takk ñu ne bu mu fi amati. pour la ñuy fayee kon. moom laa lay wax. léegi ñooñu bu fekkee ne amatu fi nan la ñuy fayee ñi nga xam ne ñoom institution financière la yoo xam ne état bi moo ko mettre sur pied pour jàppale jàppale ñiy def pour aller vers l'industrialisation nañ lañ leen di def yi nga xam ne moo nekk ci frontière yi te tey jii buñ ko xaymaa mu toll ci dix milliards. Mhm. te waroon dugg ci dëkk bi te duggul mais dix milliards yooyu nan lañ koy def. moo tax ñun ñu ne assise dañ ne. yéen ñi amee ñi si amee loon banque finance jël leb banque nag. noo leen di ñi nga xam ne ci loolu lañ doon liggéey. Mhm. ñu war a toll ci lu mat trente mille personnes. Mhm. emploi indirect. dem chômage. ci dëkk boo xam ne yow yaa ngi ne mënoo ba léegi yaa ngi am problème mu chômeur. léegi daf précipitation daf si am. jàpp naa ne précipitation précipitation daf ci am mooy yàkkamti daf ci am a nekk seen taxawaay nag te yàkkamti gi nag dama xamul man lan moo ko waral d'accord lu fi lu fi lu fi ñor bañ di ko macc daal man loolu am na ay kuréel yu ñëw euh, bootu ci yéen oh, assis ñoo xamante ne dañuy yëngatu ci wàllu mbuus la bindoo waaw assis noonu la bindoo mais hmm. léegi loi bi le 20 avril ministre bi li ma dégg man mu wax ko. mooy mel na ne da leen a dànkaafu. dégg léegi léegi lan mooy nekk seen taxawaay. le 20 avril ma ma wax le mieux. waaw bam ñu dalalee. Mhm. ñu laaj ko lan mooy lan mooy luwaa bi ci boppam. Mhm. mu leeralal ñu ko ñu ngi ko ci gërëm bu baax di ko sant. Mhm. moom monsieur le ministre mu leeralal ñu loi bi. ba ñu ko waxee ne ko ah ñun de d'accord nañ d'accord loi bi leer na waaye li nga xamante ni moo fi jot a am nan lañ koy def ndaxte boo xoolee tey ji BRT bu jugee. Euh, géejawaay war a ñëw Dakar. Mhm. kër yam waroon a jaar. ku ne xam na ne kër ya fa mu fañ ko waroon tabax tabaxuñ ko fa. Mhm. nan lañ def seen i borom. dañ leen a jëlee foofu. dañ leen fa jëlee mhm. dédommagé leen. waaw ba leen sax pour ñu am beneen kër. waaw même marchand ko amee laa newoon euh, rond-point Liberté si sax. dit mais lu tax jéemu ñoo xool kon. li nga xam ne moo fi waroon a nekk ci wàllu économie. ci wàllu koom. ñu xool naka lañ koy def. bu fekkee ne ña nga ca war a jëlee sax bu fekkee ne tey jii ñaar fukki million lañu waroon a ñàkk nga ne leen ah ay la yéen man day am naa téeméeri junne bu ma leen kii ngeen dem seeti leneen wala bokk nga accompagner leen sax ñu def benn transition vers une autre activité. lépp lépp bu ko état bi deful lan mooy nekk seen taxawaay yéen assise xam nga ministre bi ma waa yeggale foofu ba mu ñu leeralee ba pare parce que suñu toogaay boobu ñaar ñaari poñ la woon ba ci mu leeralal ñu loi bi ak pour ñu wax application bi naka lay demee mm-hmm. ba mu ñu leeralee loi ba pare ñu wax ko ne ko waa ñun léegi la nga xamante ne nii moo nekk ci frontière ci port yeeg nangam te xayma bi toll ci dix milliards léegi loolu nan lañ ko a def xam mm-hmm. ngeen dem jël ko jaayee ji ko fuñ ko tere wala ngeen seet nu ngeen ko def loolu irresponsabilité la du ma wax loolu de man mm-hmm. du ma ko sañ waaye nag dinaa ne ak kilifa bu fekkee ne da ngay jàkkaarloog ñi nga xamante ne ni par exemple yow yaa leen yirif te ñu ñëw di waxtaan ak yow seetal lu gën a rafet. Mhm. wala loo xam ne un langage boo xam ne c'est beaucoup plus diplomatique. d'accord nga tenir mais xam nga Modou li nga xamante ni tey euh, du yoon te ñëpp remarqué ko mooy su dee teree woo mbir dem ba di ko tere ña nga xamante ni ñoo say yëngu. war ngaa xool yan commande lañ sa def ndax xam nañ ni ñëpp xam nañ ne mbuus commande lay doon commande mën naa durer ay weeri weeri weer ñaataay nekk ci ci frontières yi ñaata milliards lañ si dugal hmm. Euh, ñaata nit ñoo ciy liggéey comme ni nga ko waxee temp temp mais munoo jekk-jekk benn secteur rek nga bëgg ray secteur bi mu noonu bëgg faa toroxal ay nit te ñoom defar ay emploi lañ wax léegi nag yéen assis lan mooy nekk seen taxawaay le 20 avril su dee nee leen naka fi na fi jógee c'est fourage dali xëddeen fi ñu toll nii de wax naa la ko sànq mhm. assis dafa nekk benn association bu responsable mhm. du def lenn ci précipitation mhm. du def lenn ci yàkkamti mais danañ leen wan ne kat ñun kat fii lañ ci toll. ndax jàpp ngeen dem xeex grève. non ñun def nañ lu ëpp ñun li ñuy def moo ëpp loolu. xam nga li ñuy def lan la. Mhm. proposition. waaw non a ngi def ay. proposition yéen a ngi def dama la a proposition rek. benn proposition rek ci wàllu mbuus yi. Mhm. man jàpp naa ne Sénégal. Mhm. mbuus yi ñuy wax ne dafay taxawaalu ci mbedd bi di fàtt kaniyoo yooyu noonu. mais mbuus bu fàttee kaniyoo c'est parce que amuñ fu ñu ko def. problème récupération lañ am. amuñ problème nangam ak nangam. li muy yàq environnement yàlla xam na ko. Mm-hmm. gis nga tey jii bu ñu amoon un système de récupération mm-hmm. jar na sax. Mm-hmm. ñu dem ba teg ci taxe. dama lay jox benn exemple. tey jii doo dox ci mbedd mi ba fakkastalu ci ci ci ci feer. nit ñi dañ lay fëgg sax sa kër pour nan la ndax amoo feeraay. est-ce que xam parce que am na benn valeur ajoutée bu ci ne. ci après fer bi. xam nañ ne ku ko récupéré. am nga foo ko jaayee te boo ko jaayee danañ ko jënd. tey jii imagineel rek imagineel buñ ko que tey jii fi jarul sax ngay dem seet feneen boo tàppee sur YouTube rek da nga gis mbuus li mën a defar. tey jii ñu ngi wax ay euh, pavage. Mhm. mais pavage man mbuus mën nga ci am quantité boo xamante ni nga ci defar say pavé. Mhm. mën nga ci defar pavage boo xam ne mooy gën a sax baax pavage bi nga xam ne suuf nga ko defee wala nga defee ko. xeer yeneen réew yi ñoo ngi def lu mel noonu. non mais bien sûr. te jarul jarul yenn exploitation yi jarul jarul jarul yenn expérience léegi proposition boobu ko ministre bi il suffit juste nga am un système benn système de récupération bu am solo mhm. si la faut sax nga teg ci ay taxes mhm. yoo xamante nii sax mën na sax indil liggéey sa sa say doomu réew xam lu tax mhm. tey jii ni konoon su boobaa mbuus dootu taxawaalu benn ka koy ramasser. Mhm. bu demee fa mu koy jaayee. Mhm. dana ko jaay ci loo xamante lu am solo la. Mhm. parce que comme que dafa oyof. yow boo ci tegee loo xamante dana mën a jàppale ki nga xam ne moo koy indi. dana ko sawar a jëli. fu mu ne danañ ko jëli. dëgg la pour jox la exemple Saloum. gañ juddee ñun fu dëkk fa. ndeefu nag. ndeefu nag. loolu ci Omar laa koy. laa koy déggee ndeysaan xel mu rafet la yor. maa koy nuyu au passage. Euh, mooy puubu nag yi. Mhm. mënatu xam nga tax léegi ndéef yëpp jeex na léegi lu tax mënatoo ko am. Mhm. parce que gis nañ ni. Mhm. war na mën a am benn énergie bu muy am. boo ko transformé mën na sax indi. gaz engrais mën na nekk engrais ak nangam nangam. Ah, ba pare da ngay for ndéef taal si togg si. déggu li ma la mhm. day am da nga ciy créer énergie. Mhm. tey yi gis am nañ ay yenn genre fourneau yoo xam ne yenn gaz yoo xam ne. Mhm. loolu mooy nekk matière première bi. léegi lan moo tax état bi deful loolu loolu ak yéen tey par exemple tey est-ce que bu leen état bi ku naanoon ndox tey dina ko fa mën a dugal wala ku naanoon benn kaas dina ko fa mën a dugal. ba tey da ko d'accord bañu ma. Mhm. ba tey parce que yow mi nga xam ne sa teraanga moo ci ne mhm. buñ ne la ay la yoween lii de boo ko deful mhm. sa teraanga jooju da ko ñàkk war ngaa mën a yokk sa investissement yokk sa investissement mooy lan boutique bu ne magasin bu ne te ñun sax loolu commencé dañ ko au niveau de ACIS ñun li ñu bëgg incha allahu rabbi mooy chaque magasin am benn poubelle boo xam ne dañ nekk poubelle de récupération te loolu mooy li nga xamante moo war a am bu loo xamante ni dañ ko mooy booy def politique yu demee noonu danga koy def d'une manière graduelle encore une fois. Mhm. moo ne da ngay teg benn tànk. teggi benn tànk tegal benn tànk mais mais yéen ACIS euh, association des commerçants et industriels du Sénégal ñaan ngeen ministre bi mu dàq délai bi. ay weer ci kanam wala at ci kanam ngeen xool seen marchandise bi ñëw ngeen. Ah. mu kii ah déet kii jàkkaarloog yow. ne la nekk ca frontière daal lu fa ñëwagul rek léegi seet leen fu ngeen ko def wala ngeen ah, seetee heure waxu ministre bi amaana mën na cee génn mais négociation am na fi médiation moo tax ma ne la ñun la nga xam ne moom lañ war a def mhm. bañ jógee ci moom mhm. danañ seeti suñu ministère du tutelle mhm. seeti nañ ko dañ fa seetiwaat yeneen kilifa. Mhm. yoo xamante ni dañ ci war a mën a def médiation. Mhm. ñun la ca war lettre ya sax dem na. Mhm. pour wax la ne la ñun nous une association responsable. te lépp loo xam ne duñ koy bëgg a def wala lañ koy def rek dañ koy bëgg a jaarale ci yoon. parce que nous sommes des patriotes. mënuñoo muusu ko waane ba duñ nekk sénégalais. d'accord mënuñoo muusu ko waane ba duñ accompagner l'économie sénégalaise. jërëjëf euh, Pape Modou Gueye yow yaa yor lépp lu jëm ci euh, euh, lan ngay tàggoo ci une wala une minute waaw li ñu tàggoo rek mooy gërëm la d'abord véritablement fii moom euh, sunu sunu kër la. seen kër la macha allah gërëm encore une fois ki nga xam ne moom mooy le président directeur général. Mhm. Euh, le président mhm. gërëm tous ses mhm. parce que lii aussi li ma ko waxee sànq rek lu rafet la ci ab dëkk boo xam ne dafay jëm vers l' parce que communication moo mel noonu. donc tout support de communication rek dafay participer ci li nga xamante ni moom mooy développement bi. Mm-hmm. ça c'est un deuxièmement. Mm-hmm. ñu gërëm bu baax ñi nga xam ne nekk biir association de commerçants et industriels du Sénégal képp ku fay commerçant importateur ak képp ku fay industriel nga nekk fa. ak képp mm-hmm. koo xamante ni yaa ngi yëngu tey jii ci wàllu mbuus ñu ne la ñu ngi lay bàyyi xel. ñu ne la it ñu ngi lay jàppale ñu ne la it ñu ngi ci sa ginnaaw ba lépp loo xamante ni xëy na war nañ koo mën a def. gouvernement bi bàyyi leen xel waxtaan ak ñoom ba lii nii ñuy wax nii ñu bàyyi xel bu baax économie bi bañ a fàtte environnement bi c'est hmm. mais bàyyi xel bu baax li nga xam ne moom mooy économie sénégalaise. c'est très important donc ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen di wax ne rek. Hmm. ñu jéggal ñu bu baax a baax bu fekkee am na ay dëng-dëng wala ay rëq-rëq. Hmm. li ci rafet ñu nangool ko yàlla. gërëmee ko sunu borom. di wax rek coronavirus bi aussi. yàlla ñu ci yàlla dimbale. ba fii kaa yi tollu Sénégal. mu mu mu yem fa. Mm-hmm. li nga xam ne yi responsabilité la mu war a jógee ci état bi ñu ngi koy ñaan état bi mu jël ko mm-hmm. li nga xam ne responsabilité individuelle la ku ci nekk ci ñun mm-hmm. nga di ko bàyyi xel mooy lépp loo xamante ne nii lu waa secteur sanitaire la wala expert sanitaire yi di santaane nga di ko def kenn ku nekk ci ñun parce que ci geer lañ nekk te kenn ku nekk ci ñun da war a nekk sa benn soldat wu bopp pour Sénégal jërëjëf euh, Pape Modou Guèye euh, ñu fàttali ne yow yaa yor lépp luy jëm ci wàllum communication ci euh, kuréel gi di association des commerçants et industriels du Sénégal moom la ñu invité woon tey seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci wàllu technique bi mbokki ñu leen sant baax a baax di leen di gërëm di leen jox dig daje samedi bi di ñëw jërë ngeen jëf.